deux forages yi ñu gas avant le màggal de moo population ñoo doon jooy ne dafa manqué ñu ba gouvernement gas deux forages ñaari forages yëpp ñi ngi ko amee ci trois cent trente de profondeur nappe maïstriche ñaari yëpp ñoom euh, ñi doon def doxu ñaxtu wala ñun waa Mbàkke bëgg nañ ndox mu neex mais wax naa ne fii sama bureau man fii laa dëkk juddoo fi yaroo fi suñu kër mën naa ne kër soxna may ñi ko dax consommé ci ndox ci dëkk bi yaakaaruma ko ndax zone boobu yëpp fa lañ ndox te moo koy fay ba ndox mu neex mi dañ ko jënd ci charrette yi léeg-léeg ma rootiwaale tool indi kon liñ ciy consommé deux factures yi métti na mais deux factures yooyu moom fépp ci àddina bi ndax Europe ak fu mu mën a doon da ngay jënd ndox mi ngay naan bokkut ak ndox mi ngay utiliser mun peut-être amuñu doole di jënd Pierre Val tous les jours wala di jënd Volvic tous les jours mais am nañ doole jënd bidon ay nit nag bu ñuy wax dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg bañ naxante bañ nax population yi Mbàkke Mbàkke lii tax mu mën a am ndox mu neex mooy Lac de Guiers bi état du Sénégal projeté pour andi ko Mbàkke Lac de Guiers ak si Touba dugaale Mbàkke loolu muy option bi gën pour ñu am ndox mu neex beneen bi ci pour ñu ndox mu neex mooy ñu indi ay unité de traitement d'eau ay osmose inverse pour mën a jël ndox mu am xorom mi wala ndox mu sëcc mi désaliniser ko te bu boobaa ab privé ko mën a def te privé bi koy def fu mu jaayee fu mu génnee 1000 litres ndox bu neex dana tuur 1000 litres ndox bu naqari ndax lu ma xam la man dama koy appliquer dama koy def ce qui veut dire que privé boobu il faut ñaari possibilité la maanaam soit mu gas forage pour liggéey ko soit SDE di ko jaay ñuy traité ndox mi di ko jaayat te mënut a créer réseau de distribution maanaam circuit de distribution am ay otom yuy wër di jaay mais mënul am réseau c'est pas possible wa ilaa ñu jënd ndoxu saret yi posé naa leen question bi ñëwee sama bureau ma ne ndax yéen da ngeen bëgg de l'eau potable wala da ngeen bëgg ndox mu neex ndax dafa am différence eau potable mooy ndox mu mu mën a naan moo xamante nii du indi benn loraange ndax nag mën naa neex ba pare bari ay loraange ndax boo xoolee man am naa tool boo xam day jaay ndox mais da ngay yi am na ci ñoo xamante dañoo set am na sëtu yu donc loolu mooy li nga xamante ni mooy li mën a neex ndax ñun ñëpp ko bokk kon nag population yi bu ma sañoon bu leen di wax da leen di wax lu leer beneen point bi may bëgg a dikkee cangé j'ai fait des investigations te ma aussi ndax dinaa def lu analyse pour xam ndox mi mais nag analyse bi bi mu bëggee def analyse quand j'ai demandé ñu ne analyse bi ci source bi rek nga koy mën a jëlee mooy bu ndox mi génnee ci forage bi jaar ci château bi génn avant mu dem ci circuit bi avant mu ci réseau bi ndax réseau bi am na tuyau yoo am na 50 ans am na 40 ans am na tuyau am na 20 ans mais tuyau yooyu bu fekkente nii léegi dafa infecté wala ak force bënn laal ko te yëguñu ko wala moom quelque part fu muy fuite ainsi de suite mu infecté mais kooku kenn mënu ci dara donc nañu ànd ak lucidité gën a waxtaan xool nan la ñuy fexe ba Touba bu amee ndox mu neex Mbàkke am ndox mu neex